groupe Mouhalim Info maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar vraiment di rafetlu débat bi ni mu doxee depuis semaines yi yëpp nag wax dëgg yàlla waxtaanee xam-xam ñoo fi génn ay kilifa ñoo fi génn di wax dëgg yàlla joxe ay xalaat yu solo yi di yoo xam ne kenn ku ne mën na cee jariñu maa man de maa ngi déglu waaye maa ngi siy jariñu bu baax a baax a baax xam naa dama ne woon naa féeti woo déglu rek waaye mbir mi dama koo seetlu ba seetlu ko. xam ne xalaat bi ma ci am daal fa ma ma ma wax ko xam naa li ci suñ moo am li mu waxee tamit tax na wax dëgg yàlla man affaire Cheikh ma Diagne moom naqari na ma trop mais politique pol ni ñu ko bëgg a politiser moo xaw a xaw a doy waar ay ay nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla ci démb dañ leen a xamoon ci wàllu politique suñ bëggee jël combat bi porte ko bëgg ko def combat combat yoonu murit loolu tamit dana xaw a diis ci ñun taalibe yi wax dëgg yàlla duñ ci mën a dugg te duñ mën a bàyyi Sëñ Omar Dia duñ mën a bàyyi Cheikh Omar Diagne muy continuer di wax li muy wax te buñ ko bëggee bëggee bëggee def affaire ak diggante état bëgg ci dugal affaire état loolu yi dafay xaw a di Cheikh Omar Diagne état Sénégal jotewul ak ak ak yoonu murit dara leen waroon ci màggal gi def nañ ko leen war ci gàmm yi ñu ngi koy def bañ fi toogee tamit liñ mën ci rafetal askan wi ci di leen dimbale ci wàññi dund gi yëpp ñu ngi koy def macha allah yal yàlla gën leen a taxaw. ñii fi nekkoon i tamit ay jàmbaar lañu góor-góor nañ seen kenn kàttan fukki at ak ñaar ñu mën ci réew mi def nañu ko wax dëgg yàlla ñi fi ne bu ñu defee lu mel ni la ñooñu def mbaa ñu def li ko gën bu yàggee Sénégal jëm ca kanam rek lay def bi ci des nag mooy kaw Cheikh Oumar jàng man damaa jàpp ne fi débat fi ñu ko bëgg a yóbbu wax dëgg fa yàlla tournure bi mu bëgg a jël nii euh, moom moom moom maanaam teg pression état bi moom muy def nangam loolu di rafetul ci ñun murit yi ñu di ko def Omar Diagne tooñ nañu loi am na ci réew mi ñaar moo mën a am mooy ñu dem ci yoon wala ñu fajal ko suñu bopp rek génn ci état waaw la ko faj nag gannaaw moom débat débat xam-xam la woote sëñ bi nañ dajaloo ñu tontu ko ci xam-xam nañ nañ dajaloo ñu tontu ko ci xam-xam ba mu fi nekkee boobu ba léegi di tooñ nit ñi di ko seetaan lu mat juróom at wala juróom-benn at lu ñaaw lu ne teg na ko ci kër yi diine yi rawatina yoonu murit lii munu jaral nii nii nit ñi di ko wax wax dëgg fa yàlla jaral jaralu ko jaralu ko jaralu ko jaralunu ko woon xawma nag lu xew beneen bi ci des bërki démb làbb bi fii la wax ne moom bi Sonko ko waxee ci wàllu muuraay gi mu ne mu ne mu ne moom gëm yonent boo xam ne eh, maanaam daw dee moo ko tax a jógee ci dëkk daw dem ci benn dëkk di gaaruwaale yonent bi sallallahu alayhi nit ñi dafa mel ni dañoo bàyyi loolu mu jàll daanaka ñenn ñenn nit ay ni ustaas yu ne ci tele yi ñoo ci ñoo ci commentaire ñoo ci wax beneen bi ci des boo ko boo ko seetee yi tamit Omar Diagne nee na Touba am na ay signe franc-maçon nee na Tivaouane am na ay signe franc-maçon dégg dégguma sax Tivaouane waaye nee na grande mosquée am na ko waxi dëkk yu bari wax na ko ci sortem mu mujj yi léegi su fekkee loolu am na yaa xëy si bu ñu dóor Omar Diagne nañ dem ba ci moom ne ko ana signe franc-maçon yi mu ne signe yaa ngi ni ñu dem dindi ko loolu danga moom mooy loolu mooy wax ji di su fekkee moom nee na gis na fa ay signes franc-maçon duñ ko duñ ko duñ man de maa ngi koy woo fan yëpp damaa jëlut amoon naa numéro am nag wax dëgg yàlla mosuma ko cee jot waaye daal fexe naa ba am numéro am ngir woo ko mu wan ma fu signes yi nekk moo ko wanee ma dem foto ko ñu wan ko sëñ Muntaxa ne ko ngóor si nee na lii moo ne ci jumaa ji ñu dindi ko sëñ bi loolu loolu du jafe-jafe li mu wax ci mbindum sëñ Tuubaa nee na mbind mi dañ ko war a améliorer dañ ko war a méngaleeg jamono dañ ko war a nangam nangam nangam sëñ bi bu bu ne gis na ji faute waxul dëgg amut ndax nusian lii nuuru lisaani wal kitaab azmaana xidmati la da ahlil kitaab suñ tubaab moom suñ borom sàmmal na ko boppam ba mu wax ne sama mbind sama borom musal na ko ci ak njuumte su ne nag war nañ ko améliorer fexe ba mu gën a méngoog jamono fexe ba nit ñi gën ci mën a jariñu loolu si amale daan ñun ñii lay dimbale ndax foo dem ci àddina murid yoo fa gis ay nit ñu ñuul lañ ak i sénégalais te mbindum Sëñ Tuubaa buñ ko yaataloon gën koo tas bind ko ci làng ci àdduna si yëpp ñëpp mën koo jariñoo su fekkee loola la ci jublu su boobaa loolu alhamdulilah ñun ñi mu ko soññ ñun ñoo ñun ñoo war a def lool mais sëñ bi toog di dundee barke sëriñ bi ak ko wax nit ñi di daanu naan dañ ko war a def li war a def laa te kenn ku sëñ Tuubaa jaral jàng <coughs> jël téere mi bind ko ci lang yi at muss yëpp jël yoonu murid yi sëñ bi di ko defal ay colloque international ba Nations Unies di làkk ca dem ci réewum jàmbur def ay conférence ca lang yi ñooñu nàmp di fa tasaan njàngum sëñ Tuubaa kenn defuñu ko foo réew moo dem murid yoo fa fekk Sénégal lañ jóge dañ faa dem dañ fa móodu móodu ji te Sëñ Tuubaa lim bind maanaam buñ ko tasaaree bind ko tasaare ko àdduna sëpp mën nañ cee jariñ su dee wet googu la Cheikh Omar Diagne di waxee loolu loolu loolu loolu loolu mënees na cee jariñoo waaye waaye waaye nun suñ problème mooy débat lañ nanguwut sëñ bi saa yoon yi sëñ tubaa nangam wala dañoo war a def nangam nit ñi ne amoo taalibe da ngaa bañ sëñ tubaa da ngaa war da ngaa def da ngaa war def laa nañuy toog ak nit ñi ñi yore yeneen i xalaat ñuy jël seen i xalaat di ko boole suñuy xalaat su ko defee yëf yi mën a dox waaye ku jóg ñu sëñ bi gàddu yet daggi daggi buum maanaam di def yi ñuy def nii wax dëgg fa yàlla baax na de wax dëgg yàlla waaye man daal affaire Cheikh Omar moom wax dëgg yàlla moom lii lii lii maanaam am na yu ñu fi waxal yàlla yàlla ci jëmmi boppam ci biir Tuubaa jii nga xam ne nun fi lan dëkk waxal ko fi ay wax yoo xam ne maanaam booba kilifa yi yëpp booba la ñu waroon a jënd jël jël maanaam ay yet ak def ay conférence presse jàpp ñu ko wax ñu duma leen ndax bu ñu taxawee ci dëkk bii ni Sëñ tubaam yàlla la wala Sëñ tubaam moo bind yàlla wala Sëñ Tuubaa gën yonent bi wala nangam nangam nangam yooyu boo ko nit waxee fii ci dëkk bi su boobaa waroon nañoo def conférence de presse wala ñu taxaw ca taxawaay yi ñu ci war a taxaw ndax loolu ku ko wax nag bu fekkee diine rek la ñuy àtte woo lislaam àtte bu mu ci yow xam nga ko ñëpp jàng nañ ko xam nañ ko waaye daal wax dëgg fa nag dañuy su su lu jar xeex su ñëwee duñ ko xeex te leneen bu ñëwee sëñ mi ñu gar ci suñuy bakkan loolu tamit wax dëgg fa yàlla kenn xamul lu mu doon